Nous jox situation wu tey euh, communiqué numéro 26 tey àjjuma 27 mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot résultat ou examen yi mu yóbbu institut Pasteur si ñaar fukki examen ak euh, ñeent fukk ak ñeent wax nañ ne fukk ak ñent ñoo ci positif ci téeméer ak ñen fukk ak ñent ci fukk ak ñent yooyu 11 yi cas importé la mooy cas bu jóge bitim réew ñëw ñaar yi ka contact la yu doon suivre ci contact yi benn bi nag transmission communautaire la ñu leen di yëgal ne si ñi ñu doon faj ci Touba am na ñaar ñu si wër ba tey danañ leen génne ñi ñuy hospitalisé Touba fii si Dakar ak Ziguinchor ñu leen di yëgal ne ñi ngi am tan bu baax tey fii si senegal bu ñu xaymee mën nañu wax ne téeméer ak fukk ak ñeent cas la ñu positif bu mbir mi commencé ba léegi si téeméer ak fukk ak juróom ñeent yooyu ñu yëgal leen ne fukk ak benn yi wér nañ bon dëgg mën nañu wax ne téeméer ak juróom-ñett ñoom ñoo nekk hospitalisation ba léegi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di demander demander population sénégalaise yépp ñu respecté bu baax conseil yi ñu leen di jox ak digal yi ñu leen di jox pour que ñu mën a xeex jàngoro bi